d'accord Cheikh Tidiane Gomis euh, ñu jàll ci actu bu ñu ci actualité sportive ñu ñëw ci mbirum Bougane parce que récemment rek gis nañ UC dem fa ak waa gendarmerie ñi naa ne dañuy acharné wu ci homme politicien bu fa nekk ñi naa ne dafa war a fay li mu yoreel xel yi jaxasoo yow ban jàngat nga am ci situation boobu. xam nga dañoo nekk ci loo xam ne euh, gis nga dëkk bi. warul am deux poids deux mesures fii ñi fi amee l'impôt entreprise yi fi amee l'impôt te fayuñu politique marabu yi fi am l'impôt te fayuñu ministre yi fi amee impôt te fayuñu ak a waa léegi na waa waa léegi waa léegi ñun ñëpp na na na na na na waa euh, impôt et doom impo DG de léegi ñoom nañu ne léegi na ñëpp fay comme normal comme moom na xoolal amatul par parloo léegi na ñëpp fay na ñëpp fay man pol nga wax bi yëpp foofu la dee dañ ne ñëpp fay ñëpp da dem fay ah bu waa Bougane danaa ko ne eh Bougane yow ko atte ñëwal waaye singili rek Bougane am na fi ay entreprise yoo xam ne ñu ngi doon amel impôt ñaata impôt am na ñoo xam ne dañoo amel Senelec ay ay en kii yu amee fi Sénélec walla Sones walla Sonatel walla nangam kenn waxu leen dara waaye nag buggaan parce que daal lan la Macky Sall moo nekkul sportif Macky Sall n'est pas un sportif dans le jeu politique il n'est pas sportif waaw ay armes illégales lay utiliser mais ay armes légales moo baax dans un combat que li muy def moom bu xamee ne que kii mu ngay kii rek ba mën na ko nii mais loolu moo war a jeex suñu politique c'est pas comme ça la politique la politique c'est pas comme ça la politique c'est une compétition et ci biir compétition lenn moo am dans dans une compétition lenn kese moo am mooy xam nga lan la ku nekk à jeu égal arme égale ñu dem ku mën sama xom gagné waaye Macky bu dee xam ne kii mu tëj la Macky Sall bu kii nii ne sax mu indil la ay euh, kii euh, euh, kii waaw kay fay fiscal waaw loolu yëpp nag est-ce que noonu moom mooy noonu du noonu Macky du noonu bu mu def noonu léegi nag fi may tëjee ci wax boobu lenn la waaw léegi ana solidarité bi ana solidarité parce que nous tous, on doit être solidaire à des médias. Parce que nous, ni on est appelés demain à aller travailler là-bas. mais est-ce que duñ jéem a xool solution parce que buñ génnee profilu Bougane homme politique et ñu indi patron de presse parce que foofu ay père de famille ñoo fa nekk ak ay jeunes yoo xam ne ñu ngi fay liggéey di ñàkk di am loo xam ne ñu ngi ciy suturloo di dimbali seen waajur est-ce que duñu jéem a ut solution mais pas côté affrontement ñu jël nii. non mais affrontement nguur gee ko def moom deful dara mais pourquoi am na ñoo xam ne dañ lay woo négociation am ñu ngi koy defal ñeneen waaye dal ne mën ñu ko defal bugaan ñu koy defal euh, euh, yeneen télévision yi yeneen rajo yi ñu ngi koy defal ñeneen ñi waaye lu tal ne moom parce que daal day politique ah yow nit amoo droit politique ah am nga droit politique la politique c'est l'art de développer euh, wax xam société waaw mais moom loolu la bëggee mais non mais qu'on se dise la vérité nañu bàyyi xoolal nañu jeu jeu égal bi dégg nga am na fi nag ay ay ay ay ay ay ay organe de tappale ay CNRA kii yooyu yëfu tappale la yëfu tappale kese la tout ce qu'ils veulent mooy mooy te naa la wax leen de oh waa jëmale loolu tappale la loolu loolu kiwu tappale la euh, dama ne euh, kii euh, eh xam nga yeneen médias yi dañuy toog ni di gis Bougane yi après Bougane ay Walf ñoo ci tegu de bu ñu paree ci Bougane ñu nga ñëw Walf bu ñu paree ci Walf dem seetaat keneen koo xam ne arrangé wu leen na ne kii de ñun ñii bii ba ñu préparé wu léegi nga gis ñu def ñu noonu léegi waaw singili la singili la avec de tappale la éliminer euh, kenn non non éliminer Euh, kii bi média bi lañ bëgg a éliminer. ngay wax ñi liggéey ci média bi pour seen taxawaay parce que loolu su naree am presse bi dafay nekk en danger. nga ne. lan ngay wax pour média bi pour ñu mën a booloo parce que singali boobu bu naree continuer presse bi xam nga euh, saa yow xam nga lan la xam nga yow yaa ngi ci métier bi. oh man ak yow bokkuñu organe waaye yow li la metti daf ma war a metti man loolu moom mooy logique boo xam ne ñun moom lañ wax a def. noonu la demee il faut que ñu solidaire ñun ñooy quatrième pouvoir dañuy solidaire si on bu ñu solidairewul du baax awaay ah ndeysaan si di si di nekkatu fi si di de bu fi nekkoon woo na ñëpp ñëpp booloo dem xeexi waaw waaye nag malheureusement ku mel ni sii di amatu fi ku ci nekk nag mu ngi sàmm sa intérêt ku ci nekk laa mu ngi sàmm sunu intérêt ñu ñëpp ñëpp nag kat nag kii ñëpp ñoom boole ma ci ñun ñëpp dañuy sàmm suñu intéret ñun ñëpp suñu intérêt la ñuy sàmm waaw xool nañu euh, euh, intérêt collectif mais euh, intérêt personnel ñun ñëpp ce qui n'est pas normal waaw man yàlla na ma yàlla mu musal ci intérêt personnel intérêt personnel bu doon intérêt personnel man mi tey ji yow boo ñëwee sama benn villa bu ngand laa lay recevoir recevoir la ci oto booy kii ma waay yow waay yow waay nga xam ne man maa ngi ci sama donkaasi gi waa intérêt personnel je suis le plus mal aimé du Sénégal parce que sama position la maa ngi nii et pourtant mënoon naa di wax ay yu neex rek ma waxoon yu neex rek ma am yu neex c'est ça le Sénégal Sénégal noonu lay doxee nag waaw intérêt personnel rek sa affaire day baax waaye intérêt collectif di xeexal ñëpp di waxal ñëpp di nangamal ñëpp doo am tous waaye nag yàlla rek tôt ou tard yëpp yàlla la dëgg dëgg rek lépp looy def def ko ci dëgg rek da ngay am ndam. merci Cheikh Tidiane Gomis ça a été un plaisir. Euh, ñu invité la fii recevoir la ci sans limite ñu bàyyi la rek nga wax sa dernier mot. waaw euh, maa ngi leen di remercier euh, vraiment je suis heureux euh, di wax ci sans limite euh, di nekk benn kii boo xam ne site boo xam ne dama koy gis ay ñu bare di koy visiter mais man sax il m'arrive dama dama koy visiter di xool dégg nga vous faites du bon boulot continuez comme sax Euh, seen patron yi nag laa bëgg nag ñoom ñu xool xool leen tamit parce que euh, bu ñu amee benn euh, loo xam ne day dem dañ ci gën a far farlu yéen a ngi def seen liggéey ñoom ñi tamit nañu def suñu liggéey comme ñun ñii tamit Walfadjri ñun ñu def suñu liggéey patron yi tamit dañuy wax a xool ci ñun xool loolu moom mooy loo xam ne la jaadu pour pérenniser l'entreprise waaye tappale intéret personnel bu ñu koy def ah, benn média du fi dem benn kër du fi dem benn entreprise du fi dem <clears throat> loolu laay demander à ce que euh, sans limite je le dis et je ne le dis pas pour vos je le dis parce que je le sens je le euh, je le vois et, et, et j'écoute et que cent limite au nom de boo euh, ñu bëri damay ñëw euh, kii ne ma ah booy ci sans limite gis naa fi lii cent limite gis naa fi lii donc vous faites bon boulot ne seen patron yi ñoo war a góorgóorlu nañ bàyyi tappale bi